ah yàlla wax de wa in kuntum ndéem nekk ngeen yéen yéefar yi fi ray bin di sikki sàkka mimma ca la nga xam ni damay mooy alquran nazzal naa wàcce nañ ko ala abdinaa ci sunu jaam bi te mooy muhammad sallallahu alayhi wa bu ngeen nekkee di ca werante naan alquran ndax yàllaa ko wàcce wala muhammad moo ko sos wala bokk ngeen di wax ni yàllaa ko wàcce wala man yàlla dëkk naa leen yàlla nee na man yàlla dëkk naa leen indi leen seen boroomi xam-xam ña dàq wax ci yéen ngeen jële fune ne seeni xërëm ngeen ñëw fatu indi len rek bi suratin ci ben sar min mislihi bu melni alquran benn saar benn saar ci alquran ngeen sos ko ah ba ba gën a gàtt laa wax ngeen jéem ko waxuma la baqara ba si de benn saar yàlla nee na yàlla nee na yéen yéefar yi bu fekkee da ngeen sikki sàkk ci ni alxuraan ci man la ci ci ci man la jógee na ngeen indi benn saar ngeen indi la ca ànd yëpp yëpp yëpp da ngeen koy jéem te du ngeen ko man wadu indi leen woo leen shuhadaakum seeni xër ma yëpp yi ngeen xam ni moom ngeen gëm ni bu ëllëgee ñoom ñoo leen war a seedeel nii lii dëgg la in kuntum saadiqina bu fekkee ni wax ngeen dëgg ngeen indi ah seeni boroomi xam-xam seeni bulaxaawu seeni xërëm seen lépp di ngeen ko jéem fa in lam taf alu ci li passé du ngeen ko def walan taf alu li ñëwagul itam du ngeen ko def xam nga lam dafay fekk mudaariu mudaariu mooy loo xam dafay déroulé lam day fekk mudaariu mu jasam ko lan fekk mudaariu manam lam da fay fek daari wu mu jazam ko gele ko ci li déroulé yobou ko ci li passé lan fek mu daari ko ci li déroulé nasab ko yobou ko ci li ñewugul lam xarfu nafin wa jazmin wa qalbin mudari'an madiyan lan xarfu nafin wa nasbin wa istiqbal taqu ragal len annara sawara allati sawara wa nga waquuduhaa mattam annaasu way mooy ñi la naas ci boobu kenn du ko firee nit al ussaat na leer de gaa yaa ngi def erreur kat bu ñu nee annaasu kon ñun ñëpp ci la ñuy dugg kat wóorul man de damaa ragal sawara annaasu daal na ànd ak ñay mooy yàlla annaasu way mooy ña wal xijaara ak xërëm ya déedéet annaasu way mooy ña uiddat xaroof na ko lil kéefirina ñeel way ñeelu yéefar ya kon nag léegi gannaaw bi nga xamee ni way mooy ñi mooy nañu weddi nañu ki nga xam ne nag moo gëm ni alxuraan ci yàlla ci yàlla ci yàlla la jóge yàlla ni ko bashir bégalal yow muhammad alladina xoolu gaa ña nga xam ni amanoo gëm nañu ni man yàlla maa wàcce alxuraan <laughs> وبشر بيجل اليوم محمد الذين خلقا نيغا خامني امنوا گم نانيو من يالا ما واتي القران وعملوا تنيو نيب الصالحات بيجل لين ان لهم نيلنا لين جناتين اي بساتين فيها اشجار مثمره